ok alhamdulillah incha allah ñu ngi war a del tey aaya soixante quinze juróom-ñaar fukk ak juróom ci suratu nisa wama lakum la tuqatiluna fi sabilillah الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي نيجي يسال سنت سني بروم سبحانه وتعالى من يرسغلات ندجتي سني نينتلو دجي تيويرو مغوي دي شهر رمضان di tombeek le 26 mars te la nga xamee ni nii mooy 2023 bi daje boobu nga xam ni bu dul woon wéeru koor it day jullit waroon na dox lu sori paas lu cher ngiree mën koo fekke arena fam nekk ca jam ñaajo léegi la ngay gis ay table publicitaire ñuy wootee ndaje yi fay am naan entre dix mille VIP vingt mille ak coono ba ngay def pour dem fa boo fa demee loo fay jëlee xanaa lu dul la nga xam ni la ëpp ca ndaje yi fay am lu dëppoo la ngërëmal yàlla amma daje yu mel nii day bu la ko yàlla nangulee te yàlla nañ ko yàlla nangul yonent bi alayhi salaam bégeel na la ci ñeenti mbir yoo fay jëlee mbir mu jëkk mi nee na yàlla dana la wàcceel ak dal as sakina dal googu nga xam ne boo demee milliardaires yi États-Unis yi amuñu ko ña nga xam ne artistes yeeg ña gën a kii amuñu ko te mooy yàlla may la ak dal xol nga am jàmm sa njaboot am jàmm sa foo mën a nekk ñaareel ba yërmandeem yàlla yiir la ak yërmandeem doomu aadama bu ko yàlla dugalee ci yërmandeem loolu mooy la gën a màgg yërmandeem mooy aafiya ci àdduna yërmandeem ca àllaaxira moom mooy aljannam ja ñetteelu mbir ba mooy muyu na ay malaakaam ni ñëw wër leen mi ngi noonu malaaka yu tedd yu màgg yooyu wër gañ leen di wër di leen ñaanal njéggal di leen ñaanal yërmande nekk aji seede ci ñoom it yawmal qiyaama ñeenteel ba malaaka ya nga xam ne ñoo ne ca moom de almuqarrabun ñoo nekk xawla al arsh borom bi di leen wax xool leen sama jaam yee bàyyi nañ seen lépp yite daje nañ ci sama néeg sama téere dong moo leen fi yóbbu ñu koy jàng mbokk ñeenti yi yépp te benn ci ñeenti yi yu nekk jaroon nañu daje lii la ñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bégalee yàlla na yàlla subhanahu wa taala nangul ñu ko kon incha allah ñu bàyyi ak Cheikh Ousmane mu delal ñu suñu bind bu jëkk
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا والولدان, والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا بارك الله فيكم أعوذ, بال... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني بروم جل وعلا مني وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله amano yéen lu leen ñeel ba du ngeen jóg xeex ci yoonu yàlla wal mustadafina min arrijali wan nisa ca ñañ ñeewal doole ca góor ñaak jigéen ña wal wildaani ak ndaw ña allazina yaquluuna rabbana ñoo ñi nga xam ne ñi ngi naan ay suñu boroom axrijna min hadihi alqariya génne ñu ci dëkk bi azalimi ahluha nga xam ne dafa tooñ aji ñoñam ya ñoñu dëkk ba waj'al lana min ladunka waliya ca nga def ñeel ñu la bawoo ci yow aji péete waj'al lana min ladunka nasira ca nga def ñeel ñu la bawoo ci yow ku ñuy dimbil aji kuy dimbili allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah ña nga xam ne dañoo gëm dey ña ngay xeex ñoom ci yoonu yàlla wallazina kafaru yuqatiluuna fi sabili taaxut amma yéefér ya ñoom ña ngay xeex ca yoonu ab taaxut mooy bépp yoon bu safaanoog yoonu yàlla rek taaxut la taaxut mooy lu jéggi dayoo da nga dégg borom bi di wax naan falamma taxal ma mi ngi noonu ba ndox ma jéggee dayoo ca nuux فقاتلوا أولياء الشياطين أولياء الشيطان كوي واي خيخ لينك فرندو شيطاني إن كيد الشيطان كان ضعيفا بخي شيطان دي نكن لومبان لول ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم خنا جسو تنيغا خمنا دلين وخون فك لين سن لخي وأقيموا الصلاة تنين تخول جلي وآتوا الزكاة تنين جوخي أزكا فلما كتب عليهم القتال بنيو فرطا ليتي نيوم لغا خمنا موي خيخ إذا فريق منهم يخشون الناس تي نون لا نغيس بن كوريل تي نيوم نغي راغال نيت ني كخشية الله كوم ناني ورا راغال يالا أو أشد خشية ولا صح گن جا تر تي راغال وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال نون أي يالله lu tax ngay bind ci ñun xeex ay faratal ci ñun léegi xeex lawla axartana ila ajalin qarib ay yàlla lu teewoon nga yeexeñu ba ci dig bu gën dig bu jege rek qul mataa'u dunya qalil nee leen bànneexug àdduna day lu néew la wal axiratu xayrun liman ittaqa alaxira day moo gën ñeel karagal yàlla wala tuzlamuuna fatila te kenn du leen toñ lu tol ne fatil xooxu tàndarama buum gu sew ga nekk tëdd ca biir xoox ba muy fatil mi ngi noonu jëll waala mbokk démb suñu borom mi ngi ñuy woo ci ne génn leen ngeen xeex ci yoonu yàlla te kii xeex ci yoonu yàlla bu demee ñu rey ko fa pay gu màgg ma ngi koy xaar su gañee ay noonam pay gu màgg mi ngi koy xaar léegi suñu borom nag dañuy wax lenn ci ay illa yu tax julit ñi war a jóg dem jihad mbokk nañu xam ne jihad fi sabilillah heure boo xamee ni nii yonent bi daana ko def wala mu koy santaane suñu demee ci ab dëkk li ñu leen di wax mooy kaay leen ngeen tuub dugg ci lislaam diine ji nga xam ne moo leen garantir jàmmi adduna ak jàmmi allaxira ñun ñépp ñu bokk doon ay doomi ndey yemoo képp ca yàlla suñu nangulee fa lillahi alhamdu jeex na su dee ne nag bañ nañu su ko defee ñun ne leen kon bàyyi leen ñun ñu jiite dëkk bi képp ku bëgg a dugg ci lislaam kenn du ko bundu xataal ñun ñoo leen yoral seen sécurité su ko defee ñoom ñuy joxe li ñuy tudde jizya di impôt loolu suñ ko bañee la ñuy doog a xeex lu waral loolu mbokk tey ji àdduna bi yépp nangu nañ lu mel noonu tey xoolal la nga xam ne mooy occident occident nga xam ne amérique ak suq yoo topp ca gannaawam angleterre ak france ak yeneen keneen nañu seen otan boobu nga xam ne pacte bu ñuy def pour ànd jàppoo ba lañ seeni dëkk kenn du ko kenn du fa dal waaye it diine dañ gëm ñoom muy la démocratie fépp foo xam ne amul démocratie dañ dem mabb ko samp fa la ñu neex moo gaa yi keroog bi américains yi takkoo ne dañuy bombarder ji Irak ndax Irak Irak daa demoon bombarder Amérique la wallahi lañ jàpp mooy nee na ñooy Saddam Hussein ak ñoom àndal doxaluñu démocratie kon dañ ko war a daaneel moo gaa yi keroog bi France di dem di bombarder Libye te la ca gën a métti suñu maamum réew lañ jëkk yónni mu dem na Xadaafi demal jóge fii ah wax ay waxam gis ngeen France ñoo bombarder Libye tas tasar Libye ndax booba waa Libye ñoo demoon bombarder France ban tooñ la Libye def France waaye dañ na au nom de la démocratie ils ont le droit ñoom dem bombarder dëkk yi rey des millions mbokk guerre Irak ba mu commencé ba léegi ñaata lañ fa rey rey des millions yàq ay réew au nom de la démocratie amma l'islam moom li mu gisoon mooy au nom d'Allah yàlla mi borom asamaan ak suuf nañu xeex ngir ku bëgg a dugg ci diine dugg ci sans problème yéen ndaw ñi bëri du ngeen fàttali ko waaye laaj leen mag ñi xamoon lan mooy Bosnie ak Hersek lan moo xewoon ci Bosnie lan moo xewoon ci Albanie ay ñoo xam ne dañ doon dund diine ay communiste yi dal seen kaw benn feuille alxuraan ndaw buñ ko gisal égal dix ans de prison képp kuñ gis ngay woote ci diine égal prison à vie wala ñu rey la gannaaw bu ñu def génocide ku fi julit nañ ko fi génne ñaata lañu rey ca Bosnie loolee mbokk mooy répercuté woo tey ba Centrafrique ni yéen nga koy dégg de waay ñaata ay julit lañu rey ci Centrafrique lan mooy seen fët buñ def mooy dañuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah ñu rey dañ rey lu bon loo xam ne un centième bu noonu dañ ko rey ay chrétien de par le monde occident yépp jóg taxaw kon mbokk ci gàttal suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne sahaaba yi jóg leen xeex ngiree ngeen libéré ñoo xam ne ñi ngi ci ay dëkk bëgg nañ jaamu yàlla ci ñemewuñu jaamu yàlla googee loole le borom bi subhanahu wa taala di wax mustadafin min arrijal wa nisa wal wildan ñoo ñi nga xam ne ña ngay ñaan yàlla ca mbokk xoolal sab téere ñaanuñu jibril ñaanuñu muhammad ñaanuñu ibrahim rabbana ay yow julit lu la jaaxal waxal rabbana bay xeetulu ko waxal rabbana bay fakkas solo bul wax yaa cheikh yaa sëñ diw soto buy daanu bul wax yaa cheikh yaa sëñ diw waxal rabbana rabbana ay yow mi suñu boroom yow mi ñuy bind moom ñu yow mi ñuy taxaw yow mi ñuy dundal yow mi ñuy rey dañuy wërsëgal rabbana yàlla nag ñu génne ci dëkk bi nga xam ne waa dëkk bi ay tooñkat lañu tooñ bi gën a rëy mooy bokkaale ñi ngi bokkaale ca bëgg ñoo xiirtal ci bokkaale ca nga may ñu lu bawoo ci yow ku ñuy féetewoo ki ñuy dimbali gis ngeen min la dun ko comme nañ koy waxoon démb wala barki démb julit buy ñaan la bawoo ca yàlla day xam ne aajoom lu mu rëy rëy rëy la jóge ci yàlla ko gën a rëy gis ngeen na doon bakkaar bu muy jéggalu la na doon soxla bu muy bëgg mu faju la na doon lu mu mën a doon lu mu rëy rëy ci yow rek fa huwa inda allahi ah sunu borom nu ko waxee na huwa alayya hayyinun mi nga noonu ma nga doon lu yomb ca borom bi jalla wa ala borom boobu ni yéeféer yi day ñi ngi sax di xeex ci yoonu ah jullit ñi day ñoom ci yoonu yàlla la ñuy xeex te nañ koy waxoon démb daa iman mbokk jihaad day nekk fi sabilillah jubluwaay ba nekk yëkkati kaddullah kaddug yàlla waaye ñu teg ko ci charte ya yàlla tërallu amma xeex yi nga xam ne da dafa am un peu partout dans le monde tey ñu koy tudde ay jihaad yooyu ay xeex la yoo xam ne ni dëppoo wala na lislaam gisu woon jihaad mu ne nag yéefiri ñoom ñi ngi xeex ci yoonu taaxóot taaxóot mooy cheytaan mi nga xam ne moo ngemb ay gaayam ci ne xeex leen ak julit ñi ba diina fay ci kaw suuf borom bi nag mu ne bu leen leen ragal xam leen ne pexe cheytaane lu lompañ la ca naam mbokk julit tey ji on dañuy wax grande puissance da ngeen koy dégg waay les grande puissance mbokk kan mooy grande puissance allahu al aziz mooy borom grande puissance allahu akbar musulman bi dana ko répéter plus de xanaa cinquante fois par jour allahu akbar mbokk allahu akbar min amérique wa min russe wa min japon wa min lu mu mën a doon yàlla moo yor puissance la hawla wala quwata illa billah suñu borom mu ne seen fexelu lompañ la yàlla moomu subhanahu wa taala mas na fi nekk ci jamono xawmu nuux jàppoon na ñooy grande puissance xawmu huud jàpp ñooy grande puissance xawmu saalix jàpp ñooy grande puissance waaye ba borom puissance ñëwee xam nañ ne duñ grande puissance de pexe cheytaane lu lompañ la cheytaane boobu keroog xare badr ñëw na feeñu waa màkk ci jëmmam jëmm doomu aadama indi melokaanu benn yéefér bu ñuy wax suraaqa ibnu malik bu jiite woon benn dëkk boo xam ne ñooy bani bakr ñëw fekk waa makka mu ne leen maa ngi ànd ak yéen tey inni jaarun lakum tey xam ngeen kenn du leen mën a dégg ba ñu demee ba ñaari armée yi jàkkaarloo yéeféri yu suraqa di rocceeku di daw ñu ne ko suraqa foo jëm mu ne toog leen foofu inni ara ma la tarawna waaw man maa ngi gis lu ngeen dul gis ndax dafa indi woon jëmmi suraqa waaye iblis ci boppam la maa ngi gis lu ngeen dul gis ndax boobu gis na jibril mi ngi ñëw ànd ak junniy malaaka gis ngeen inni ara ma la taroona inni axaafu llah wallahu shadidul iqaab mi ngi noonu loolee kon pexe cheytaane lu lu lompañ la lompañ ga nag la muy lompañ la la ciy musal mooy yàlla jalla wa ala heure boo yëgee ay pexe waxal auzu billahi min alcheytaani rajim loolu mbokk mi benn borom bi delluwaat ci sahabatul kiram mbokk l'islam ba muy doog a door treize ans yi yeneen ti ba l'islam def màkk yépp suñu borom def ne julit yi bu kenn xeex bu kenn fayu da nga daan gis benn julit jàmbaar ju tol ne omar ibnul xattaab ab yéeféer romb ko da ko yéen yéene wedd sunu yàlla yi xaax tëf wala dóor wala len suñu borom mu ne kuffu aydiyakum fexe leen bu kenn fayu taxawe leen julli joxe zakat boobu suñu borom ma ngi leen defal formation pour ñu mën a maîtriser seen bopp te ji ñoom bilal cam ñu jaar ci arts martiaux mooy soo demee ñuy jàngale karaté kung fu lu mën a doon lañ lay jëkk a jàngal mooy nga mën a maîtriser sa bopp ñoom dañ naan soo fexee ba duma sa noon tu es fort soo maîtriser sa bopp tu es puissant ba ñoom dañ naan combat bu amee ki ëpp chance pour gagner mooy ki gën a maîtriser boppam pourquoi ngeen gis karatéka yi du yuuxu ki yaa yooyu ñu yuuxu mooy pour déstabiliser seen noonu la waaye kay yuuxu mbokk yuuxu mun taree ñit waaye buñ la yuuxu rek nga jaxaso fa ngay jaxaso rek la ñu yëg si sa kaw gis ngeen loolu moo tax suñu borom treize ans mu formé sahabatul kiram bu kenn fayu luñ leen wax maîtriser leen seen bopp moo tax keroog ba mu leen joxee ndigal benn ci sahaba day dàq fukki yéeféer am déet mu ne su ngeen matee téeméer dàq junni ndax booba formation ba dëgër na ci ñoom dëgër boo xam ne léegi yàlla rek a tax ñuy xeex ndax booba seen bakkan xeex nañu seen bakkan moo nat ko xeex yépp léegi yàlla tax ñuy xeex moo tax suñu borom yàlla ne leen bu ngeen matee téeméer da ngeen mën a duma la nga xam ne moom mooy junni loolu it mbokk nga war a xeex ak sa bakkan yow tamit nga la way diine ji fexeel ba li nga ciy def yàlla tax bànneexu bakkan bu mu tax ngistal bu mu tax xool bàyyi ak kum mën a doon bul jox kenn cër ci diine yàlla ji looy bàyyi na yàlla tax looy jàpp na yàlla tax li nga jàpp ci yàlla tax bàyyi ak kum mën a doon ci àdduna bu mu tax nga bàyyi ko li nga bàyyi ci yàlla tax àdduna yëpp buñ dajewoon bu mu tax nga def ko suñu borom mu ne bañ leen waxee nag ne jóg leen ngeen xeex ña nga xam ne seen xol seen ngëm dafa lompañ daa di ne ah yàlla waaye ñun amaguñu ah nombre bu ñu mën a jóge di xeex ak yéefir yi waay te loolu mi ngi amoon mbokk keroog ca atum ñaareel ma ca gaddaay ga ba yonent bi demee madina suñu borom wàcc ay aaya nag uzina lillazina yuqataluuna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim la qadir ñooñu nga xam ne ñooy sahaaba yooyu ñu yàgg xeex suñu borom mu ne tey nag dox naa leen digal ngeen xeex ca yàlla pour dimbali leen am na ci kattan suñu borom ne leen iwaay xam leen dundug àdduna lu néew la mbokk mataa ud dunya qalil dundug àdduna lu néew la ci temps xoolal sahaaba yi alquran doon wàcc ci ñoom man nga wax ke mujj faatu ci ñoom ba mu faatoog léegi def na quatorze siècle quatorze siècle ñu ngi seen biir bàmmeel ñu ëppoon ci ñoom téeméeri at lañ dund mais def nañ quatorze siècle ci mooy junni at ak ñeenti téeméer def nañ ko seen i bàmmeel ca addu ca àdduna jeexagul kon yow doomu aadama xamal ne sa dund gi lu néew la loolu ci wàllu temps amma wàllu wàllu matériel mbokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu jox benn misaal boo xam ne foo rëbbee géej xoolal géej nee na soo bëggee xam xéewal yi yàlla jagle ci àjjana ak par rapport li yàlla wàcc ci xéewal ba àdduna sosoo ba léegi mu ne da ngay dem géej nga jël sa baaraam samp ci géej gi li taq sa baaraam mooy représenté xéewalu àdduna amma aljanna mooy li des sa géej ga ndax gars yi li mënees na ko comparé là c'est pas comparable looloo tax ba nga la waay bëgg a nekk président bëgg a dajale des milliards bëgg ñëpp xam la bëgg lu mu mën a doon ba mu tax mukk àdduna gi nga jënd ko alaxira mbokk priorité alaxira wabtaghi fi ma ataaka allahu dara alaxira lépp loo am ci pexe ci kattan ci xam-xam jënde ko alaxira àdduna bi lee mu jeex loo fi mën a am da nga ko fi bàyyi dem lee mu jeex alaxira nag moom mooy la nga xam ne mooy sax mi ngi noonu gis ngeen mumin ali firawna lam waxoon ca pale firawna te mooy ay firawna yéen ak seen notable kaay leen ñu gëm Moussa إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار أي فرعون يا سنتابلي أدنى جيني نكي بان سنداولو لين مو جيخ الآخرة بون دمي هي دار القرار فوفو لا ني صاح كومبيان 1000 ميلون لا 1 مليون دني لا 1 مليار دني لا انفيني دو جيخ با فاو كون كاي لو نيغم موسى باغي ديف لي غاي ديغلوñ ko bañ koy déggulu lit gis ngeen la la ca xew ñoom ñëpp yàlla alak na leen ña nga nar a nar a tabbi naari jahannama xaalidina fiha mbokk suñu borom yàlla nag mu ne kenn du tooñ kenn ci dara amul looy defal yàlla lu mu néew néew néew misqaala zarra lu dul pay ga mi nga lay xaar ci alaxira yàlla na yàlla sàmm ñu fi dunia wal axira
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا فكفى بالله شهيدا بارك الله فيكم سني بروم جل وعلا مني أينما تكونوا fépp fu ngeen mën a nekk yudrikkumul mawt dana leen dab lii di dee walaw kuntum fi burujin mushayyada donte ne da ngeen nekkoon ci ay taax yu ñu kaweel wa in tusibuhum hasana heure bu leen dalee lu baax yaqulu haadihi min indillah ñu ne lii de waaye ca yàlla la jóge wa in tusibuhum sayyi'a heure bu leen dalee lu bon lu ñaaw yaqulu haadihi min indik ñu ne lii day mi ngi jóge rek ci gaaf ak muhammad kul qul kullu min indillah ne lépp day ma nga bawoo ci yàlla fa ma li haulaai alqawm lan moo ñeel waa xeet bii laa yakaaduuna yafqahuuna xadiisa ba ñoom day duñu nekk di mën a dégg la nga xam ne mooy ay wax ma asaabaka min xasanatin fa min allah lu la dal ci lu baax lu rafet xamal ne loolu ci yàlla la jógee wa ma asaabaka min sayyi'atin fa min nafsik lépp lu la dal ci ñaawteef loolu ci sa bakkan la jógee wa arsalnaaka linnaasi rasula ñun yàlla ñoo la yónni nga ñeel mbooli mi nit nekk ab yonent wa kafa billahi shahida te doy na yàlla rek mu nekk aji seede mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax ne ey yéen ñi ragal a jihaad ey waay dem leen jihaad bu dee dee ngeen ragal dee moom kenn mënu koo nëbbatu kenn mënu koo daw fu ngeen mën a nekk dee dana leen fa fekk même bu doon da ngeen a defar ay château fortifié du tee dee moom bu ñëwee dana leen fekk foofu mbokk loolu misaal yi ci suñu borom yàlla joxe ak a bari waaye bokk na bu ci gën a feeñ li xewoon ci 11 septembre ndax yéen a ngi koy fàtte waaye 2001 ci États-Unis taax ya gën a kawe ci États-Unis suñu borom yàlla wooni taax yooyee naka la ñuy màbbee ñu koy filmer en direct ba tey yow ndaw boo génnee boo duggoon sa portable YouTube nga gis immeuble yi ni muy jóoroo gis ngeen ña nga xam ne ñoo fa nekkoon jamono joojee mënuñu woon xalaat dee dana leen mën a jóge fenn na am États-Unis googu nga xam ne dañ ko protégé par des missiles patriotes kenn xamul avion benn avion xalaatul jóge feneen di leen bombardé si waaye bi yàlla ne mi ay mbiram ci biir États-Unis la ko yàlla naawale am déet atahumullah min haysu lam yahtasibu gannaaw ba mu bokk ci fiñ gënoon a protégé ci États-Unis muy li ñu tuddee Pentagone nga xam ne fa la armée américaine yi nekk suñu borom jël benn ci avion ba dóor foofee gis ngeen loolu muy wane na mbokk protection ci dee amul ak bëri militaire bu dem jihaati wala géeri ñëw ñu tàgge ko ay xaritam ay mbokkam yu bëri yoo xam ne ñu ngi woon ci dëkk bi am déet te moom fa mu demee xuru xuru ko sax defu defu ko fa kon doomu aadama bi suñu borom yàlla subhanahu wa taala rek ngay war a ragal dee moom bu jotee da ngay dee bu jotul nag dara mënulaa tax a dee bu jotul dara mënulaa tax a dee immeuble yooyee am na ñu fa nekkoon immeuble yu màbb seen kaw teewul am na ñoo xam ne deewuñu si am déet mi nga noonu ñu ngi may fàttali benn benn ci amir américain yi buy nettali nee na dafa gis immeuble yi ñi nga daanu bon léegi nee na ma ne yàlla waay yàlla na yàlla yàlla na déggi gaaw yàlla na déggi gaaw yàlla na déggi gaaw bu ju nee na ma ma xëm perdre connaissance mu deme dem ba mujj yàlla yee ko bi ko yàlla yee ah frère bi di ko woo ci téléphone téléphone bi sonné nee na ma fexe ba jël téléphone bi daa dina ko maa ngi trentième étage mu ne ko étage amatul de lépp jóoru na mais ah sapeur pompier yi jël téléphone bi tapp ko ak bulldozer yi di dajji di dajji di dajji ba génne ko mun a ceg kaw taxaw gars yi lii du kaw teefu waay kon ku nuur te dee doo dee jurit moom yàlla rek lay ragal maa ngi fàttalu ko benn ci jigéen Afghanistan yi boo ko Afghanistan dañ doon jihaad fi sabilillah bi ñuy xeex ak Russie te jihaad bu njëkk ba dañ doon jihaad fi sabilillah yàlla subhanahu wa taala dimbali leen am na benn jigéen bu mës a ñëw ci armée afghan mun na leen e waaye maa ngi leen di ñaan ngeen wóolu yàlla te jihaad fi sabilillah ñaari doom la ko yàlla war a sëgaloon bi ñuy dem di jihaad kenn ki moom daal di jóg dem jihaad yi kenn ki daal di toog ci kër gi ndax bëgguñu ñaar yépp dem bañ demee ci jihaad ba jihaad nañu fa ba daanaka russe yi daw kenn ki jihaati woon moom dara dalu ko fa ki toogoon ci kër ga feebar feebar bu gaaw daal di dee xoola gars yi du du kaawtee fa ah kay kon moo tax dulit moom day ragal yàlla waaye du ragal leneen du dul yàlla borom boobu nag subhanahu wa taala ne su leen nattu dalee ci ay ñàkk ci ay musiba ñu ne lii lépp muhammad kese moo weddi suñu xërëm yi mi ngi noonu moo fi indi diina ji bees ak lu kenn xamul amma bu dee ne xéewal dan na leen nag ñu ne ah lii moom mbaax la gu ñu yeyoo mbaax la gu ñu yàlla defal suñu borom nag ne leen déedéet lépp ci yàlla la jóge doonte ne ni ñoom mën nañoo dégg ay mbokk loolu ci yàlla la jóge ci ay dogal yàllay dogal lu baax yàllay dogal lu bon te loolu biig rek ñu ngi koy fàttali ak mbokk jàkkat yi diri day gëm ne lépp lu am ci kaw suuf dogal bu yàlla la jalla wa ala amma nag bi suñu borom mujjee ne lu la dogal lu la dal ci xéewal ci yàlla la jóge loolu mooy la nga sabablu ba lu baax jóge ca mbaaxu gi yàlla la da ngaa génn jihaad fi sabilillah yàlla def nga gañe say noon rey leen jël fa ngañaay loolu mbaaxu gi yàlla la amma li la dal ci ay nattu feebar yeeg maral yeeg catastrophe yeeg yépp loolu mi ngi ci jóge ci bakkaaru doomu aadama yi zahara al fasad fi al barri wal bahri ma kasabat aydi nas mais yàllaay dogal lépp amma doomu aadama soo sabab loolu baax mbaaxoog yàlla la mu dëppaleel ak lu baax boo sabab loolu bon lu bon loolee doon conséquence boo xam ne mbugal lay doon ci yéeféer bi doon ak jajj ci julit ñi mbokk julit ñi bu yàlla dee teg ci ñoom ay catastrophe mooy pour jajj leen ñu dellu gannaaw la mi ngi noonu mi ngi mel na rek tey ji li nga xam ne bu dañ koy fàtte mukk de yàlla bi mu namee indi kawteef ci catastrophe maritime bi gën a rëy bu muy nattoo waa kaw suuf dëkk bu ñuy wax Sénégal la tànn defe ko fa ndax yéen a ngi fàttaliku loolu day dëkk bu ñuy wax la wax Sénégal la tànn indi fa suuxu gaal goo xam ne depuis yonent gaalu yonent yàlla noox nga ba tey mus ñoo xam gaal gu yëpp lu jege 2000 personnes suuxandoo lu dul dëkk bu ñuy wax Sénégal ndax Sénégal rek la ñuy waxe wax joo xam ne waxuñu ko Inde waxuñu ko benn dëkk ci kaw suuf wallahi lazi la ilaha illa huwa ci sama xam-xam bu gàtt gàtt gàtt gàtt Sénégal rek lañ dégg ñu ne sëñ diw moo bind yàlla inna lillahi wa inna ilayhi rajiun am déet kon lu leen dal ci nattu xam ne ni yéen a koy faggu su ko defee kon ñu war a ñaan yàlla yàlla laabal suñu réew wallahi problème économique yi ñu fi wax grève yi dul jeex syndicat yi dul jeex mbokk loolu du problème lii problème mooy bokkaale gi ñu nekkee suñu borom nee na walaw anna ahlul qura amanu wattaqoo la fatahna alayhim barakatin min asama wal ard su nit ñi ragaloon yàlla tënku ci diine mu ubbi leen barke asamaan ak suuf waaye tant que ñi ngi nekk la yàlla moo mën ñu xañ ko ñu bëgg koo xañ yàlla bëgg koo jox ñoo xam ne amuñu sañuñu jël nañ leen suul leen ci ay bàmmeel ñu jàpp ne ñoom ñoo yor mbir yi luy xéewal bari bari it karat rek coow lu dul jeex ak fitna yu dul jeex rek yàlla na yàlla delloo ñu ila siratul mustaqim borom boobu nag subhanahu wa taala ne yow yeneen ti yàlla bi dama laa yónni ñil kaafatan li nas moom rek la ko yàlla mës a def moom rek la yàlla mës a yónni ila kaafatan li nas gannaaw ba it yàlla mooy doy aji seede ca mooy yow sa warugar mooy wooteel yàlla nag mooy seede lépp looloo tax keroog yowmal qiyaama dana gis leen ci xeetam mu xàmmee leen ci niñ doon jàppe mu woo leen kay leen malaaka yi ba max leen mu ne yàlla ñi sama xeet lañ bokk mu ne ko fekk yow xamoo li ñuy sos sa gannaaw li ñuy sos sa gannaaw xamuloo ko kon yonent bi alayhi salaam li ñuy def fii ñoo ko sos moom xamu ko amma yàlla mi nga xam ne mooy seede lépp moom mooy seede keroog bu ñu waa isa ibnu maryam waaw isa yaa waxoon chrétiens yi nañ la jaamu yaag sa yaay mu ne man ah déedéet yàlla te gàttal mu ne ko falama tawaffaytani kunta alayhim raqiba wa anta ala kulli shay'in shahid yàlla de loolu sama gannaaw la xew mi ngi noonu ba ma fa jógee de lañ ko sos yow nag yaa seede loolu man fekkewuma ko seedewuma ko loolee kon ñu bàyyi ci xel bu baax mi ngi noonu Cheikh Ousmane
من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان
barakallahu fikum suñu borom jalla wa ala mu ne man yuti rasula faqad ataa allah képp koo xam ne danga topp yonent bi day xamal ne topp na yàlla wa man tawalla képp koo xam ne daa dudd wone gannaaw fama arsalnaaka alayhim xafida ñun de yónni wuñ la ci ñoom ngay ku leen di wattu wa yaquluuna taa heure buñ toogeeg yow na ah ñun kay ñi ngi lay topp fa ida barazu min indik buñ demee ba jóge ci yow nag bayyata taifatum minhum noonu lay dem fanaane benn kuréel ci ñoom غير الذي تقول لصفا نغ لا دون wax والله يكتب ما يبيتون دونت ne yalla ngay bind lañuy fanane فاعرض عنهم دم يل ci ñoom وتوكل على الله ca ngay wekku ci sa borom وكفى بالله وكيلا doyna yalla rek muy aji ku ñuy wekku افلا يتدبرون القران am ndax nit ñi settantaluñu alquran ji ولو كان من عند غير الله bu doon te ne daa nekk jóge ci keneen ku dul yàlla la wajadu fihi ixtilafan kathira kon day doon nañ ci fekk ay juuyoo yoo xam ne yu bari lay doon wa ida jaahum amrun min al amni aw al xawf heure bu leen dikkalee mbir bu jóge ci kóolute wala ci tiitaange azaau bi ñu daal di koy tasaare walaw radduuhu ila rasul donte ne buñ ko delloo woon ca yonente ba day wa ila ulil amri minhum ak ña nga xam ne ñooy seen biir boroomi dogal ca ñoom mi borom xam-xam ya la alimahu allazina yastambitunahu minhum dana ko xam ña nga xam ne nii ñooy génne la nga xam ne mooy xalaat yu wér ya nekk ca loolee istinbat walaw la fadlullahi alaykum wa rahmatuhu tey budul woon a ngëneelu yàlla ak yërmandeem day la tabaatum shaytana illa qalila kon doon ngeen topp sheytaane lu dul néew mi ngi noonu mbokk suñu boroom jalla wa ala moo wàcce ab téeréem jox ko ab yonentam ne képp ko topp yonent bi day yàlla la topp muy wone ne ku moy yonent bi yàlla la moy looloo tax ba julit ni ngay gëmee alquran noon ngay gëmee sunna lépp lu wér ci sunna nga topp ko looli falilahi alhamdu jurit ñi ci lañu nekkoon ba ba noonu lislaam yi daa di sos daa di créé benn diine bu bees bu ñuy tuddee alquraaniyuun ñoo xam ne dañoo jàpp ni ah diine daal muy alquran leneen lu dul alquran du diine malheureusement cheytan am moyen bu rëy bu ñuy tuddee internet internet boobee lu bëri ci ay ndaw dañuy jóg bëgg a gëstu seen diine jaaruñu ko ci borom xam-xam su ko defee dugg ci internet bi rek ñañ jëkk a gis ñu gën a éloquent gën a leen wax yóbbaale leen day yomb lool ba tey sénégal gi ñu fiy xam ay ndaw ñoo xam ne ci mbooloo yooyu lañ bokk inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bokk suñu diine ji mooy alquran ak sunna képp koo xamee ni nii bëgg nga teqale alquran ak sunna mi mel nga fekk am picc rek nga damm benn laaf bu pare nag na ko naawal du sotti abadan su ko defee suñu borom mu ne wa ma aataakum rasulu fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu yonent bi lum indi jël leen lum leen tere bàyyi leen borom boobu subhanahu wa taala nag ne ku dummo yi won ko gannaaw xamal ne ñun yónni wuñu la ngir nga wattu leen bañ def ndigal li liñ la sant mooy nga jottali leen ndigal yi te loolu it mooy waru garu kuy sëriñ kuy ustaaz kuy imam kuy woote gannaaw ba li ñu sant mooy nga leeral diine yàlla ji gannaaw ba nag ku xam jëfeel ku xamul nuur na noonu ya comme naka suñ benn maam doon waxe ala kulli xaal mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ñëw ci naafiq yi mbokk naafiq mooy noon bi gën a bon moo tax suñu borom dañuy wax ca suratul munafiqun humul adu yéeféer li muy bon bon naafiq moo ko gën a bon ndax naafiq mooy kan mooy yéeféer bu sol mbubum julit mi nga noonu ñëw ànd ak julit ñi suñ ñëwee ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam toog ak yonent bi bu ñu guddi jotee ñu dem ci seen club yi ci seen na ñuy dajal ci guddi ga daa di naan waa moom day lii lay wax laa lay wax lii lay wax laa lay wax lu safa noog la yonent bi alayhi salaam doon wax di fekk nit ñi ci diine yàlla ji te loolee mbokk julit it nañu xam ne e waay yow julit fexeel ba bul dégg rek luñ ne la qaala rasulullah nga ne iskay ki lay waxal rasulullah ci ban tegtal la ko teg dañu xam ne mbokk li ñuy sosal yonente bi alayhi salaam daanaka moo ëpp la wér jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam jamono ji ñuy wax li ñuy sosal yonente bi moo ëpp la wér jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam xamal ni suñu borom yàlla mi newoon dana sàmm diineem fa lillahi alhamdu tàggat na ay borom yu xam-xam yoo xam ne hadis yooyu ñuy sosal yonente bi alayhi salaam segg nañ ko xamal ne ne lii mooy hadis yu wér lii ay hadis yu doyee de la yi mawdu la yu ñu yu ñu sos la amul cosaan loolee ñu bàyyi ko xel bu baax xame lii ne képp koy fenal yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi nee na na waajal wàcc waayam ca sawar man kazzaba alayhi mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar loolu lañu bàyyi ci xel bu baax borom boobu subhanahu wa ta'ala nee na ña ngay fanaane lu bokkul ak la ngay la ngay wax te it mbokk da ngay gis li borom bi ndax yu bàyyeetoon quatre-vingt-dix-neuf pour cent ñii nuit blanche la ñuy def yàlla gërëmu ko xam ngeen nuit blanche waay mi ngi door ba yee xale yàlla ñu yàlla jégal daal nuit blanche ah seen caam nuit blanche waaw mi ngi noonu quatre-vingt-dix pour cent ci daje yi ñuy daje nga xam ne guddi gi dañuy fanaane lu ci ëpp ci turu diine di tànqal nit ñi boo xoolee yàlla gërëmut loolu islam lan la gërëm mooy julit ñi su ngeen jullee gee ba pare dem leen ngeen tëddi waajal qiyaamul layl yeewu guddi taxaw ku nekk wéet ak sa borom di naafila ba fajar jot bu fajaree ngeen daje ca jàkka ja waaye guddi gi mbooloo yey daje fanaane daje ci guddi maa la wax ne quatre-vingt-dix-neuf pour cent daje yàlla gërëmu ko gis ngeen suñu borom mu ne ma ngay ma ngay bind nag la nga xam ne ña ngi koy fanaane na am mi ngi koy bind ndax mi ngi leen boole ak ay malaaka nga la waay mbokk xam leen ne mbooloo mu daje tey jii ñu ne jàkka je masalan ñu ne tey am nañ deux cent personnes xam leen ne quatre cent malaaka ñu ngi ñu wër am déet malaaka yooyu yàlla nañu yàlla def ñu nekk suñuy farandoo mi ngi noonu faraloo julit ñi lañu quatre cent malaaka ñu ngi leen wër fu dix daje di réunion vingt malaaka ñu ngi leen wër kiraman katibin lépp loo xam ne wax ngeen ko ñu ngi koy bind yu wa ñu ngay bind maa yu ba ci bayyitoon baram boobu nag subhanahu wa taala ne yow yonent bi kon dummóoyul ci ñoom bu leen ragal bu leen faale wékkul ci yàlla xamal ne yàlla doy na ku ñuy wékkoo mbokk wékku ci yàlla mooy nga def sabab soo desee def sabab yi nga war a def la ci des nag tawakkal ala allah yonente bi alei salaam bu daan guerre day ñëw xool emplacement yi gën a baax seddale armée bi lu ci bëri cinq parties su paree nag doo ko yëkkatee loxoom ñaan i ngi noonu loolu mooy at tawakkul ala allah def la nga man li ci des nag nga wékku ci yàlla doyloo yàlla nag mi ngi noonu sëñ tam daa ñëw wàcc ci wetu jàkk ji bàyyi gileem gi ñëw ci yonente bi alayhi salaam ka suñ tam doo yow sa gileem gi mu ne amada tawakkul alallah mu ne ko naam da nga koy tënk ba pare rek nga tawakkul alallah mi ngi noonu loolu muy mbir bi kon wékkul ci yàlla te mbokk julit yàlla war na koo day e waaye boo génnoon léegi ci mbir bi dina ha yàlla ak sëñ diw bi ma yaakaar xanaa yàlla doyut yàlla ak cheikh diw xanaa yàlla doyut fa kafa billahi wakila yàlla doy na sëkk mbokk julit yàlla doy na borom boobu nag ne waaw xanaa nit ñi settante lu ñu alquran afala yatadabbaruna alquran mbokk loolu la ñuy jéem ci suñ toogaay bi mbokk alquran dafa wàcc ngiree ñu settantal ko jëfe la ca yàlla subhanahu wa taala sant borom bi subhanahu wa taala mu ne kitabun anzalnahu ilayka mubarakun li yudabbaru ayati téere la boo xam ne ñoo ko wàcc barkeel ko ngiree ñu koy settantal borom mu ne afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha nit ñi duñ settantal alquran am seen xol yi moo tëju loolee mbokk ñu cee bàyyi xel bu baax alquran loo ko gën a settantal mu gën laa yéem kenn du ko jeexal alim ne bi talib nga xam ni man ngaa wax ni gannaaw yonente bi alayhi salaam kuñ koy méngileel ci am alquran néew na daana wax ne alquran day ñëw yowmal qiyam nekk jànq ay kenn du jeexal ay ay kawtéefam borom xam-xam yu jëkk ya da nga ca dana gis ñoo xam ne ñaari téere lañ daan yor téere bu ñuy jàng di dem ak téere bu ñuy def tadabbur ba nga xam ne léeg-léeg seen téere ba ñuy def di settantal ay at lañ ciy def xëy boo xam ne ni masalan xëy diggante fajar ba baa fajante bi fenke benn aaya la ñuy jàng di ko répété di ci xalaat di ci xalaat bu subaa ñu jël beneen aaya gis ngeen loolu mi ngi noonu yatadabbaruna alquran sahabatul kiram it noonu lañ doon def ak yonente bi alayhi salaam nee nañ dañ daan ñëw jël fukki aaya buñ jëlee fukki aaya yonente bi jàng leen la ca nekk ca ay maana ak lañ cay jëfe buñ demee ba maîtriser ko doog a ñëw jël yeneen fukki aaya waaye borom mu ne xanaa yéefér yéen it seetantu leen alquran alquran boo jógewoon ci yàlla ñuy gis si ay juyo yu dul jeex boo ko alquran plus de six mille aaya wàcc durant vingt trois ans vingt trois ans yii makka yii madina yii jamonoy xeex yii jamonoy jàmm yii jamonoy nangam alquran amul benn contradiction ndax mas ngeen dem thèse doctorat no am te doctorat da ngay gis waa ji day góorgóorlu suñ càmm lu ne mu def ko bind ab livre am su ñëwee professeurs yi dañ koy dammata dammata dammat li nga wax fii li nga wax fii li nga wax fii amma mbokk alquran amul benn contradiction lépp a nosi mi ngi noonu su nu su jógewul woon ci yàlla suñu borom mu ne daan ci gis ixtilaaf yoo xam ne ixtilaaf yu dul jeex la waaye mi ngi jóge ci borom bi subhanahu wa taala kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin min min hakimin hamid naam téere la boo xam ne suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne ne téere bu tedd la neen du ko jóge fenn dugal ci histoire nga xool li mu wax ci histoire ndax da nga koy weddi la wóolul scientifique yi ñaata la wax ci ay données scientifique ci asamaan yi ci suuf yi ci ngelaw yi ci géej yi ndax am na benn scientifique bu mas a wax ne alxuraan li mu wax amul la wallahi alxuraan dafa jiitu scientifique yi bari ne luñ découvrir dix-huitième siècle dix-neuvième siècle bal vingtième siècle alxuraan waxoon na ko moom depuis quatorze siècle kon bu jógewul woon ci keneen ku di yàlla ñuy fekk fi ixtilaafan kasira loolu mbokk mi benn borom bi dellu siwaat ci nafiq yi ak jullit ñi seen ngëm dëgërul mu ne heure bu fitna ñëwee wala xéewal ñëw dañuy daal di jóg rek daal di koy gaaw tasaare ci biir nit ñi te buñ ko delloo woon ci yonenti yàlla bi day dana leen won ban yoon la ñu war a jaar ba lii ñu mën koo jëriñoo te loolu it mbokk ñu gis doomu aadama la waay dañuy war a am diine ji bu ci demee mukk ak say xalaat lépp loo xam ne lu bees la loo xam ne dëkkal na la dellul ci say borom xam-xam ndax yonent moom nekkatu fi dellul ci say borom xam-xam laaj leen waaw mbir sangam moom ana lan moo ciy xalaat masal na suñu réew mi jaxasoo na jaxasoo bu tar sax ci politiciens yi niñ ko jaxase mais ndax jeune bu nekk moo am droit rek daal di jóg dindi ay photo boppam ne ku deful lii yéeféer nga ko def lii nangam la ko def lii déedéet moo ko julit fitna bu amee dañoo war a teey ñu delluwaat ci borom xam-xam yi laaj naa fitna day am na ci réew mi waa léegi ndawal julit lan moo ci war a nekk position lii mbokk mooy li war ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala ne ne buñ ko dellowoon seen borom xam-xam ña nga xam ne dañoo am istilbaat ca mbir ma nga xam ne jàng nañu histoire xam nañ lan la yàlla bëgg xam nañu sunna settantal ko ñooñee daañ leen ca teg yoon boo xam ne buñ ca jaaree duñu juum waaye bu dul looloo kon yéen ñëpp da ngeen topp seytaane lu dul lu néew koo xam ne amoo xam-xam mbir ñëw rek nga jóg daal di réagir mbir ñëw rek nga jóg jël sa position loolee mbokk seytaane mu lay leer di gidde moo tax borom bi ne kon da ngeen topp seytaane lu dul lu néew yal na yàlla delloo ñu ila siratul mustaqim
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا جزاكم الله خيرا سنبروم جل وعلا من أبين تم فقاتل في سبيل الله جغل خيخ تيون يلا لا تكلف إلا نفسك أمن بن رسponsibilité buñ la tek lu sa bakkan kessé wa harridil mu'minin waaye nag encourageel julit ñi ñaaxal julit ñi asa allahu an yakuffa ba'sa alladhina kafaru mën na yàlla day ci mu fekk ayu ña nga xam ne dañoy weddi wallahu ashaddu ba'sa yàlla day moo gën a tar aw ay wa ashaddu tankila moo gën a tarit nu muy mbugale man yashfa shafaatan hasana koo xam ne ramb na ramb gu baax ay def intervention boo xam ne nii bu baax la yakun lahu nasibu minha dana ko ñeel benn cër ca loole wa man yashfa shafaatan sayyi'a waaye cey koo def ak ndimbal intervention boo xam ne bu bon la yakul lahu kiflun minha dana ko ñeel moom it benn cër ca lu bon loolee wa kaana allahu ala kulli shay'in muqiita ay xafiisa sa borom yàlla day lépp lu mën a doon mooy aji ka koy wattu wa ida xuyitum bi taxiya heure boo xam ne nuyoo nañ leen ab nuyoo fa xayu bi ahsani minha bi ahsana minha e waay na ngeen nuyoo ca la gën a rafet ca loolee aw rudduha wala ngeen delloo comme nañu leen nuyoo inna allaha kaana ala kulli shay'in xasiba yàlla day nekk ne bépp mbir boo xam ne nii moom moo koy régler mi ngi noonu jalla wa ala bokk suñu borom day wax yow yonenti yàlla bi xeexal ci yoonu yàlla ca mbokk yonenti yàlla bi noonu la meloon moom day daawul jaaxaan ca kër ga rek naan gaa yi woo leen góore waay waaye moo daan jiitu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam da ngay gis ni keroog ghazwatu uhud moom ba muy génn suñu borom ma ngi koy nettali iz ghadawta min ahlika tubawwi'u almu'minina maqaadil alqital sol na ñaari gilet la boole sallallahu alayhi wa sallam dem ci xeex ali ibn abi talib jàmbaari góor daana wax ne daanañ dem ci jihaad daanañ toll position boo xam ne kenn du dox suñu digganteeg noonu yi ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn du dox digganteem ak noonu yi sallallahu alayhi alihi wa sallam moo ëppoon fit lu yàlla bind mi ngi noonu ah yonent boobee suñu borom na ko sa bopp rek daal lañ la sant mi ngi noonu soo defee sa devoir ñi ci des si ñoom seen yoon néewu ci loolu moo tax ba échec bi amoon keroog xaswatu uhud yoonu yonent bi alayhi salaam nekku ci woon bal victoire am la woon dafa waxoon na gars yi bu leen wàcc montagne bi gars yi wàcc montagne bi gis ngeen laa tukallaf ila nafsak waaye nag xarridil muminin xiirtalal julit ñi mbokk encouragé dafay jëriñ doomu aadama di yéen a ngi dégg douzième gaynde am déet douzième gaynde yéen a koy déggee waay mooy sunu football kat yi ñu ne ay gaynde lañu du ñuy gaynde de boo ko sahabatul kiram ñoo doon ay gaynde sahabatul kiram ñoon ñoo doon ay gaynde ñooñu nga xam ne nii keroog bi yonent bi alayhi salaam taxawee ci xaswatu badr ñetti téeméeri nit wala jàkkaarloog mille nit trois cent ak mille yaa ngi dégg mille yoo xam ne ñoom ba ñuy jógee seen dëkk dañoo jàppoon dañuy jihaat si sahabatul kiram ñoom xamuñu woon ne dañuy jihaat si dañoo jàppoon dañuy dogale caravane Abu Sufyan léegi bañ demee yonent bi placé leen ba pare waar leen waar leen ba pare na nag jóg leen jëm ci àjjana joo xam ne yaatuwaay bi dafa mel na asamaan ak suuf waaje leen loolu benn ci sahaaba ya umayru ibnul hammam ay yow mi xam Messi yow mi xam Ronaldo yow mi xam keneen ak keneen ak keneen Sadio Mané je ne sais pas ndax mas ngaa dégg umayru ibnul hammam mu ne haa yu mu yàlla yónni su ma dee woon tey àjjana laa jëm mu ne ko wallahi mu daal di xot jël jaaseem xot ci fi mu koy dugal mooy étu bi muy dugal jaase ji mu xot ci étu bi mi ngi yoroon ay tàndarma mu xool tàndarma yi lii sax dafa may tàndal sànni tàndarma yi daal di jiitu dem dugg ci yéeféer yi di caw di caw di caw di caw ba ñu rey ko radiyallahu anhu mbokk ñi ñooy gaynde am déet ñi ñooy vrai gaynde su ko defee borom bi subhanahu wa ta'ala harridil mu'minin loolu it moo taxoon ba na mu leen ko waxee njëlbeenu lislaam naka la naka la yàlla waxoon yàlla nee na téeméer ci yéen daan dàqu junni waaye biñ demee sax ba nafiq yi bëri ci lislaam ba mbooloo yu bëri teewul suñu borom yàlla ne iyyakum minkum mi'atun sabiruuna yaghlibu mi'atayn teewul téeméeri julit fuñ dajeek ñaari téeméeri yéefar dàq leen junni julit fuñ dajeek ñaari junni yéefar dàq leen gis ngeen encouragé leen lu tax mooy yéefar lan moo ko tax di xeex yéefar li ko tax di xeex muy àddunay kese jurit moom lu ko tax di xeex muy ngërëmal yàlla ak aljanna allahu aljanna lii moo nekkoon bakku ah mbiri dimb ya Sénégal am na ñaata mbër mi ngi doon mujj dégg yu àpp de cinq mille ñu am licence ñu amul licence moom xaw ma ñaata lañ waaye mbër yi démb muy sahabatul kiram seen bakk mooy leen allahu aljanna li ñu bëggoon muy ngërëmal yàlla ak tabbi aljanna jeex na kon xamal ni yow yonent bi ñaax leen ñu jëm ci loolu su ko defee it jullit bi nga xam ne yàlla la gëm looloo tax ab yéefar mënu koo dékku ca Afghanistan boobu ma leen doon wax bokk na ab téere buñ ci bind mooy ayatul rahman fil afghan am na ay témoignages yu ca borom téere ba di wax ci ay xalaatkat ñu ne mais Russie ak kattan gi mu amoon yépp yor Afghanistan la nga xam ne nii mooy mujahidin yi nga xam ne seen commencement presque ay xeer lañ yoroon ak yooyu luñ def ba dàq russe yi waa ji mu ne ñaar yi moo bokkul nee na armée russe ñu doon indi biir afghanistan dañ leen doon def ay kii de six mois ñoom seen six mois bu su bu nekk ñu ngi koy ñu ngi koy wàññi ba du ma dee tey du ma dee tey du ma dee tey ngir six mois yi jeex nga gaaw ni bi mosku mu ne mujahidin yi nag ñoom bus bu nekk ñi ngi naan ay yàlla naa dee tey ba dem aljanna mu ne nag ki bëgg a dee ak ki bëggut a dee mënuñoo xeex gis ngeen loolu tax russe mu jël seen dàll daw gis ngeen ala kulli xaal suñu borom mu ne xarridil mu'minin ñaax leen ci àddina jooje ca it yàlla mu ne bu ko neexee fekk aju yéeféri ndax yàlla moo ëpp kàttan waaye keroog qawmu huud ah ba ñuy wax ca wax yonent yàlla huud waa aat man ashaddu minna quwwa ay huud ñun kan moo ñu ëpp kàttan yàlla lum tontu awalam yaraw anna allah alladi xalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa xanaa xamuñu ne yàlla leen ëpp kàttan yàlla indiwul ay ñay indiwul ay malaaka lan la leen yàlla yónnee mooy ngelaw ngelaw mooy li gën a woyof ngelaw la leen yàlla yónnee moo leen alak kon yàlla moo ëpp kattan loolee kon la julit di war a sóoraale ci bañ a ragal kenn ku dul yàlla jalla wa ala borom bi bàyyi loolu xam di jàngale ne ne mbokk diine lislaam mooy def lu baax jàppalente lu baax bàyyi lu bon bàyyi jàppalente ak ku bon borom bi nag ne képp koo xam ne def ne intervention bu baax yàlla dana ko ñeel cër ca loole lu waay bëgg a jëm ci lu baax nga dimbali ko ca tuyaaba jum ca am yàlla subhanahu wa taala dana la defal tuyaaba ju tol noone tuyaaba jum am ca mbaax ga yàlla defal la tuyaaba ju tol noone naka noonu képp koo jàppalenteel ci lu bon bakkaar bu mu am ca loola da nga ca am bakkaar bu tol noone loola tax benn kaasu sàngaraa ngi nii kenn nit moo koy naan yàlla rëbb ci fukki nit fukki nit ka bayoon te tool ba jël ay raisin di ko nal ka ka jënd ka ka jaay ka ka transporté ka ka gàddu ka ka xellil fukki nit ribaa ngi nii kenn moo ci profité yàlla rëbb ci ñeenti nit looloo tax xamal ni ndaw ñi ñëw ne la bàyyi caam dañu bëggoon ngaa bal ñu kër gi kat dañoo bëgg a baal ngaa bal leen sa kër yéen a bokk musiba ba kii jëlee fële ab gelam sëñ bi alma sa néeg pour ànd ak ab gelam njaaloo gam def yéen a bokk musiba ba képp koo xam ne yaa ko xiirtal ca say wax ba mu dem rey nit bàkkaar ba mu ca jëlee yéen a bokk musiba ba képp koo jàppale ci lu bon lu bon loolee yéen yéen a cee ànd waaye jàppale nit ci lu baax yeneen bi alayhi salatu wasalaam daana wax ne ma ànd ak sama mbokk julit ca aajoom ba aajo ba faju moo ma gënal un mois ma nekk sama jàkk ji di ko def itikaaf loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom bi nag subhanahu wa taala ne lépp mooy ka nga xam ne moo koy ah wattu borom bi nag ni suñu leen nuyoo ci ab nuyoo na ngeen faye na nuyoo ba gën a baaxe buñ leen nuyoo ci ab nuyoo mbokk nuyoo dafa yaatu masalan tey benn waay da nga ko xam nga dann ko cent mètres fële soo waxee du dégg waaye boo ko rombee yëkkati sa loxo kon nuyu nga ko moom it na yëkkati ab loxoom nuyu la am déet ñu ne noonu suñ tam dawalkat yi da ngay gis gars yi dañuy nekk ci bureau circulation bi nga gis taximan bu dajeeg morom daal koy code phare mu code phare ko am déet loolu mooy seen nuyoo yaa nga def luñ la nuyoo nuyoo ren lañ leen nuyoo am maa bu dee ñun lislaam suñu borom mu ne na ngeen nuyoo ci seen bopp tahiyatam min indillahi mubarakatan tayyiba képp koo xam ne mi ngi lay dégg nga la waaye nuyoo ko nuyoo lislaam nuyoo lislaam mooy lan mooy asalaamaaleykum ci la gën a gàtt suñu borom mu ne fayal ni mu gën a baaxe kon nee ko asalaamaaleykum wa rahmatullah ñaareel ba mooy moom mu ñëw ne la asalaamaaleykum wa rahmatullah amoo droit di ko wax wa aleykum salaam da nga koo war a wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ci la gën a gàtt la gën mooy nga dollil ko ca wa barakaatuhu heure bu ñëwee ne la asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wa bilal cam ak xaritam suñu mbokk muuma bi ndeysaan yal na yàlla dolli ñu ay fay dolli ko ko li ñuy wax déggu ci dara mais teewul mi ngi nekk ci jotaay bi ngir dabu barke bi gis ngeen su ko defee wa barakaatuhu lan kay delloo la gën a néew waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu la ëpp ci borom xam-xam yi nag dañ ñu nuyoo foofu la yem am na ci nag ñoo xam ne dañ naan mën nga koo dolli wa maghfiratuhu ndax lay borom bi ne bi ahsana minha allahuma ña nga xam ne dañu nuyoo ci barakatuhu la yem yonent bi alayhi salaam dañoo toog ci benn jataay benn waay ñëw ne asalaamaaleykum yonent bi alayhi salaam ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah daal dina ashra fukk keneen ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullah yonent bi ne ko waaleykum salaam wa rahmatullahi barakatuhu ishron mooy ñaar fukk keneen ñëw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yonent bi ne ko waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu salaatun ah sahaba yi ne waaw yow yonent bi ki jëkk nuyoo nga ne fukk ki ci tege nga ne ñaar fukk ki ci tege nga ne fanweer mu ne waaw kii ñëw ne asalaamaaleykum yàlla bindal na ko fukk tiyaaba ki ci dolli wa rahmatullah yàlla dolli def na ko ñaar fukk tiyaaba ki ci dolli wa barakatuhu yàlla may na ko fanweeru tiyaaba fanweeru tiyaaba loolee mbokk dañ koy nuyoo waaye mbokk xam ngeen loolu jeex na suñu jamonoy tey xale yi tey xamuñu nuyoo bal mag ñi sax ñu bëri xamatuñu nuyoo ñu bëri rus nañu dem ci ay jataay masalan tey jii ñëw nga ci benn jataay pas boo xam ne nit ñi nekk fa nga ñëw dugal ak asalaamaaleykum wa rahmatullah gaa yi dañuy gëstu ak ci boobu xanaa mbaa xol la jóge yaa ngi dégg te loolu mbokk ay julit foo dajee say mbokk julit da nga leen war a nuyu da nga leen war a nuyu loolu muy sunna boo xam ne sunna bu rafet la soo demee ndonga daara yi dañ daan caxante ne waaw ana ban sunna gën farata su ko defee loolu mooy lan mooy nuyoo ki jëkk nuyu sunna la waaye ki ñu nuyu moom farata la te mu fay te ki jëkk nuyoo mu ëpp tuyaaba ndax moom mooy sababu waaju am tuyaaba am déet gis ngeen loolee kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax bu koy bu koy sàggane ci dara tuyaaba ju rëy la abdullah ibnu omar radiallahu anhu naafi nee na ab taalibam la woon naafi moo jàngal imaamu malik naafi nee na dama ñëw ci ibnu omar nee na ñu dem mu ñu naafi nañ dem ci marché bi nee na ñu dem marché dugg marché génn marché génn marché ñëwaat daal di ñëw toog ah gisuma mu jënd dara sëriñ su jëkk sa taali bi ñu mu leen a laaj nee na ñu dem ñu toogaat ay fan ñu ñëw naafi nañ dem marché mu ne ko waa ah waa sëñ bi keroog bañ demee marché jëndoo dara mu ne ko jënduma dara mais naafi gis nga bañ demee marché ñaata nit lañu romb wax leen asalaamaaleykum ñu ne ñu waaleykum salaam da ngaa xeeb loolu mu ne ko ah déedéet kon mbokk mi nga noonu ngalla waay booy dox kooroo mu nuyu ko rawatina dëkk bu mel ne Sénégal koo xam ak koo xamul yëpp jàppal na jurit la nous sommes 98 pour cent de musulmans koo dajal rek jàppal na jurit la mi ngi noonu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu fanweeri tuyaaba wa rahmatullah 20 asalaamaaleykum san 10 tuyaaba bu dee ba ngay demee ba baa ngay ñëw nuyu nga rek 10 personnes égale 100 tuyaaba yal na yàlla dëppale ñoo ngërëmam fi dunia wal axira may ñu jàmm ak yërmande ak mucc fi dunia wal axira te loolu it di jara lu jara bàyyi xel yal na yàlla fayal ñu Cheikh Ousmane bim ñu mujjee defal fii benn bayaan ci timis wax nañu ne julit heure booy wax sama kum julit asalaamaaleykum di ko ñaanal jàmm yaa ngi koy booleel di ko ñaanal jàmmi adduna ak jàmmi àllaxira asalaamaaleykum yàlla na nga mucc ci feebar yi mucc ci tolof tolof yi mucc ci njàqar yi mucc ci tiis yi mucc ci jafe-jafe ak daboot alaxira yàlla na nga mucc ci mbëggalum bàmmeel mucc ci yowmul xisaab fitna ya fee am mucc ci sawara mucc ci mucc ci ay assalaamu aleykum mooy yàlla na la yàlla muccal wa rahmatullah yàlla na yàlla jagleel yërmande wa barakaatuhu yàlla na yàlla barkeele fi dunia wal axira kon yàlla na yàlla may ñu assalaama wa rahma wal baraka wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain